على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به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 wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar naudu billahi min annaar allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxazana ida chita sahla allahumma axrusna bicaynika allati la tanaam waxfadna بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا wala tuhlikna wa anta raja a delsiwaat nañ ci tafsir bi bi iznillah tey noo ngi dal bopp suuratu ibrahim waaye àggale benn aaya bi mujjoon ci suuratu raad baada audu billahi min alshaytani arrajim ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل ثبار شكور الحمد لله رب العالمين نونغي بايكو في برمب سبحانه وتعالى di waxee ni yéefar ña jiitu ak ñi mujj ñooy yem ndax fexe woon nañ te seeni pexe benn àndu ci bal pexe mi yàlla mooy jàll borom bi subhanahu wa taala xamal ni ñu kenn ku nekk ci ñun la ngay def bu yaboo xool ko de ndax lépp loo def yaw yaay daawoon garanti bi fii nag ku mu neex waxal lu la neex defal lu la neex waaye mujj ga moom borom bi ne ñi ragal yàlla ñoom ñooy am ajjana yàlla bu ñu ajjana ump borom bi ñëw ci <clears throat> yéefar yi jéemal nañ yonent bi lu ne sottiwul ñu mujj nag buggu koo weddil ak risaalaam borom bi ne wa yaquulu dana wax alladina kafaru yéefar yi lan la ñuy wax yonent bi ne ko lasta mursala ñoo ñeme yàlla ne ko yow doo yonent ah dañoo mer nag waaye war nañoo xam ni kii moom yonent la wax jooju biñ ko waxee dem nañ sax ba àgg ci ni yonent bi sax nag far dof la yonent bi wax yi commencé koo metti borom bi ne wa ma saahibukum bi majnun ah da di wax rek waaye xam ngeen ni bu dof yëpp meloon ni Muhammad dof jeex àdduna ah bu dof yëpp meloon ni Muhammad dof jeex ci àdduna xanaa da ngeen mer di wax rek ñu ne yonent bi lasta mursala nekkoo yonent suñu jamono bii nag kenn ñemewu la koo wax waaye dañ la naan li nga wax gëmoo ko du dëgg bu ko defee yooyu lañuy teg sa kanam moytul ba looy wax na nekk looy gëm looy dund ak lu la ci mënti fekk na nekk loo gëm na nekk looy dund kon nag bi nu waxee loolu yonent bi yàlla na yonent bi tont bi yomb na qul waxal ne leen kafa billahi shahida ngeen ni duma yonent yàlla mat na seede ci sama doon ak yonent ndax moom yàlla moo ma yónni te yowmal qiyaam yàlla ñuy seede atte bay nii wa na baynakum sama digganteeg yéen li ngeen ni duma yonent yéen ñépp dangeen taxaw xam ni maay yonent kañ la keroog bu ñépp jaaxle ñépp tiit yéefar yeeg jullit ñi ñépp gis ni yonent bi rekk mooy jubluwaay bi nga xam ni yonent bu nekk danañ dem ci moom wala juróomi yonent yi nga xam ni ulul azm lañ ñeenti ñëpp danañ dem ci ñoom ku nekk garanti ku nekk gàntu ndax am na loo defoon te sa xel dalu ca bi ñu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jóg ne day ñaan boromam kon yàlla mooy doon seede te kat wa man indahu agit ka nga xam ne nekk na fa moom ilmul kitaabi xam-xamu téere bi mu dellu ci yàlla rek mooy yàlla mi nga xam ni moo xam li ci téereem bi moom xam na kuy yonant ak ku dul yonant ku ko jiiñ sa bopp nag yomb na waaye kuñ ko sant ñépp danañu xam ni kii lañ ko sant suuratu ibrahim saar wi ñu ngi ko tuddee yonent yàlla ibrahim alayhi salaam saar wi mbokk yi makka la wàccee jumhur dëppoo nañ ci loolu allahuma lu dul ñaari aaya rek waaye ijma dëppoo nañ ni saar bi makka la wàccee mi ngi topp ci suuratu nuux inna arsalnaa nuuha bi saar woowu jeexe suuratu ibrahim moo ci topp nga xool rek yonte yàlla nuux ndax bokkul ci ulil azm nga ni aha kay kon nag min ka wa min nuux gis nga suuratu nuux dafa jeex mu indi suuratu ibrahim saar wi nag liñ ci tax ñu tuddee ko ibrahim dañ ciy nettali dundu maam ibrahim alayhi salaam ak njabootam ñaari doomam yee nga xam ni mooy ismail ak ishaq ak lenn ci seeni jaar-jaar moo tax ñu tuddee saar wi ibrahim alayhi salaam saar wi des na cinquante deux aaya muy juróom fukki aaya ak ñaar li mu def ci ay baat di huit cent quatre vingt kalima moom la def baat yi mu def yépp noonu lay toll ay xarafam nag nekk na juróom benn junniy xaraf ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeenti xaraf moom la saar wi def dafa mel ni rek saar yi ko jiitu dina nettali jaar-jaaru yonent yi ak seeni xeet waaye dana nettali jaar-jaaru Ismaayil ak yonent yàlla Ibrahima ak waa këram saar wi nag du saar boo xam ne dañ koy yëkkati rek léppam nekk yonent yàlla Ibrahim déedéet melul ni suuratu Yuusuf nga xam ne danga nga naan suuratu Yuusuf début ba fin lépp Yuusuf la saar bii melul noonu ndax bokk na ci li muy njëkk a nettali ci dund yonent yi ku mu lay njëkk a nettali sëtu Ibrahim muy Muusa alayhi salaam loolu la lay njëkk a nettali dugg ci ñeneen doog a ñëw nag ci li nga xamante ni moom la bëggoon wax muy suuratu Ibrahim bismillahi rahmani borom bi ne alif laam ra alif laam ra nekk ay xuruuf muqattaa nim fi daan jaare rek la fiy jaaree mooy benn piri la am te mooy allahu aalam alif laam ra daal li muy tekki yàlla rek moom moo xam li mu jublu ci alif laam ra waaye borom bi ne kitaabun ab téere ngi nii boo xam ni anzalnaahu ilayka wàcce nañ ko mu ñëw ci yow muhammad sallallahu alayka wa sallam téere bi wàcce nañ ko ci kan la ñëw ci muhammad kon lépp loo xam ni ñëw na ci saar bi di lu ñuy jëfandikoo yonent bi jëfandikoo ko lépp lu fi ñëw di lu ñuy tere yonent bi tere na ko lépp lu fiy ñëw di istuwaar yonent bi nettali na ko lépp lu fiy ñëw di wax ci loo xam ni ñëwagul yonent bi nettali na ko kon saar wii ak yeneeni saar amut lenn lu ci am lu dul ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firi na ko leeral nanu ko kon borom bi nee na yonent bi téere bi wàcce nañ ko mu jëm ci yow li téere bi njëkk santaane nag mooy mission bi mooy li tuxrija annaasa min adulumat ila nuur yàlla ne li tax mu wàcce alquran ñëwul pour ñu di ko takk de comme li sénégalais yi di def wala ñu ëpp ñu mel ni ñoom loolu yëkkatiwul alquran ñëwul pour ñu koy jànge kaamil di ko jàngal gaa yi ñëwul pour loolu de waaye ñëwul rekk ngir ñu ne nañu ko barkeeloo déedéet téere bii dafa ñëw ngir lan ngir corriger ñu jubbanti ñu jubal ñu ku bëgg a jub ci téere bii nga koy jëlee ku fi tëb téere bi jubadi xam-xam boo fi indi budul téere bii du xam-xam bu tax ñuy wax loo fi wax lu du téere bi melul ni téere bii kon téere bi liy objectifu ñëwam mooy li tuxrija naas yonent bi ngir nga génne nit ñi mina zulumaat ci lëndëmu kufru ak jaxal shirk ak bida loolu mooy indi téere bi de li tuxruja nnaas min zulumaati shirki wal kufri wal jahli wal bidaati wal ahwa loolu moo ko indi téere bii moom boo ko indee ku doon jaamu bakkanam dana am lu ko metti ku doon jaamu maamam dana am lu ko metti ku doon defi xalaatam dana am lu ko metti moo tax boo waxee ci téere bii dana metti lool dootuñu wax ni téere bee wax waaye yow lañu koy delloo ay téere bee mel noonu nag ndax téere la boo xam ne moom faalewul kenn dëkkul këru kenn moom daal dafa ñëw dinu waxal fi nu war a jaar kon lii taxawaayu téere bi mooy lu ci nekk rek di tashri dañ koy jëfandikoo lépp luy àtte bu ñuy jëriñ tey ak ëllëg ci téere bi wàcc na ci su ma nee ci téere bi wàcc na ci yaani ñëw na ci quraan ñëw na ci sunna loolu lay tekki kon téere bi mbokk yi lépp lu fiy santaane boo dee jullit bu bëgg a jaamu yàlla bu wér waaye téere bii mooy sa téere leneen loo fi jël dañ lay nettali rekk ay gént ki ay maam nee naag bàyyi nee naag di la waxal yoo xamante ni dangay ngay reeba sonn téere bii téere la boo xam ni subhanallah lu ma ciy bëgg wax sax duma ko mën a wax billaahi téere bii moo doy waar noo toll boo ko yëkkatee mu wax la sa bopp doone woo ko président doone woo ko wàlliyu doone woo ko sëriñ noo mel boo ko yëkkatee di nga xam xool ko boo jàngee ba xam boo ko xoolee di nga xam ndax yaa ngi ci yoon bi wala newoo ci mbir mi moom yomb na ndax balil insaanu ala nafsihi basira ku jub xam nga ku dëng xam nga nit ñi la ñuy lëre di leen nax waaye ñi jub xam nañu leen de ñi dëngit xam nañu leen coow lay bëri rek mbokk yi téere bi dafa ñëw li tuxrijan naasa ne yonent bi ngir nga génne nit ñi min azulumaati ci lëndam lëndëmuk yéefër kéefër lëndëm la day lëndëmal xol day lëndëmal bët day lëndëmal xalaat shirk lëndëm la te day diisal nit soo bokkaalee da diis gann lu la yàlla tegut nga tegoo ko ndaw coono da nga mel ni fas wuy xiixat ndax yaa ko teg sa bopp am na lool ku ci noyyi ba sonn yaa ko teg sa bopp waaye li ñu yàlla wax bu ñu yemoon ci téere bi ñun ñëppay noppalu téere bi boo ko comprendre li ci sa poos yaa ko moom boo ko xamul nag jaamu yi nga lu ñu laaj nga joxe waaw téere bi boo ko comprendre xam lu ci nekk gaa yi seetaan la ah kii kii yeewu na kii ñor na ñor na téere bi day ñoral nit ku la laaj nga ne ko foo ko teg waaw ci sama barke maam ne yonent bi ko barke te daawut laaj waaw téere bii <laughs> téere bi day def gor da lay dangay am liberté liberté 400 pour cent ngay am waaw liberté totale moo tax fu la gaa yi gisee naxakat bu ñu la gisee dañu lay ciipatu ndax foo taxaw seen affaire yàqu bu ñu jàkkaarloog yow du ñu ñemee wax ndax dañu xam ne téere bi xam nga ko waaw dañu xam ni yeewu nga ku bëgg a yeewu demal ci téere bi téere bi day yeete dalay yee lu waay di wax téere bi dana la ko leeral beneen bi ginnaaw bokkaale bidaa moom moo yées day gumbaloo dalay lay gumbaloo moom xam nga gumba xóll mooy di xool ñu foog ni yaa ngi gis te doo gis loolu mooy gumba xóll ñu baal ma ci baat bi suñ ko waxee mooy koo xam ni bëtam mi ngi gis mais xolam gisut lan moo tax xolam gisut mbokk yi nit dina topp bidaa ba boo ko nee yàlla nee na mu ne waaye bidaa rek moo ci yóbbu nit su boxum bidaa bidaa moo yées bidaa nit bu ci nekkee lu ñu wax jaral na koo dee ndax day jàpp ni yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunaa dañuy foog ni ci lu baax la ñu nekk lu rafet lañu nekk lu jekk lañu nekk te fekk yoo lañu nekk cam du tus du dara kon noonu lay mel kon yàlla ni yonent bi génneel nit ñi ci lëndëmuk réer jëme leen fan ila nuur nuurul islaam wa imaani wa sunna yàlla nañ ci yàlla dundal rey ñu ci nuurul islaami wal imaani wa sunna leer googu mooy jël islaam am ngëm topp sunna topp sunna nag li ci neex mooy yonent bi ngay roy yonent bi ngay roy buñ la nee lu tax amoo sëriñ la man soxlawu ma sëriñ yonent laa soxla woon am naa ko doy na sëkk lu la fi gaa yi indil yonent bi wax na la la cay jëriñ lu ñu la fi tegal ne leen jaru ko suñ demee ba yowmal qiyaam ma xool ndax yéen seen gaa yee taxaw wala muhammad ay taxaw man daal leer na ma ne alquran lim ma joxoñ mooy toppal ma muhammad mii la ñu alquran wax ihdina siraatal mustaqim yow yaa ko ñaan yàlla yàlla ne la boo ko bëggee toppal muhammad muhammad avant mu fiy jóge ne ku bëgg mucc ci yéen ñu ne kaa mu ne ñaar laa leen fi bàyyee laa ñetteel ñu ne ko ban ak ban mu ne kitaab allah mooy téere bi ku bëgg a tegu ci yoon bi téere bi ngay topp téere bi boo ko bëggee jëriñoo demal ñu firil la ko nga xam lan la téere bi wax kenn dootu la nax wa sunnati muy sunna yonante bi sallallahu alayhi wa nga topp ko kon nag nga jële nit ñi ci lëndëm jëme leen ci leer te loolu kat xam nga nu muy amee bi izni rabbihim ci ndigalal seen boroom ndigalal boroom bi mu ngi déparé ci yónni Muhammad sant ko mu joxe risaala yàlla nañu yàlla may dégg ak topp mbokk yi yàlla digle ne nañu ko topp jëm fan ci suñu kër bàyyi mu ne déedéet gis naa ko de waxuma ko sunu kër maam yi mën a déedéet gis naa ko waxuma ko waaye ila siraatil mustaqim azizil hamid jëmel nit ñi ci yoonu ku tedd ki yeyoo ñu sant ko mooy yàlla nit ñi daal danga leen di tegtal ba teg leen ci yoon bi seetaan leen waaye doo xëcc nit ba teg ko ci yoon bi dinaan ko mën ngay topp mu yóbbu la déedéet yoon bi ku ci xës ba tegee incha allah jeex na jaratul sonn kon fexeel yow daal ba mu tegu ci yoon bi boo ko tegee ci yoon bi nag incha allah mucc sañ nañ ko koo yaakaaral siraatil azizil hamid mooy yoonu borom bu tedd bi te nekk ku yeyoo ñu sant ko léegi nag yoon boobu <coughs> mooy siraatillahi alladi lahu ma fi samawat wa ma fi l ardi ala ila yoon boobu <laughs> mooy sama yoon bu jub xocc bi xanaa xamu leen ni mbir yi ci man lay mujj ala ila allahi tasilu lu coow bëri bëri ñun ñëpp danañu taxaw ci kanam borom bi kon ila allahi tasirul umur lun la fi wax su nit ñi demee nag ndeysaan ba bëgg nangu dogaluk yàlla yore dogal yow war ngaa xam ne ndof gu bees moo judd rek waaw léegi moom dangay ngay dégg ay kàddu yoo xam da ngay xam ne kii moom daa bëgg a wax ni maa yàlla rek donc loolu rek la bëgg a wax dafa ragal nag di mën na koo jaaree fu ne may nangam may nangam wax yépp mooy si yow ñemeel rek ne may yàlla boo ko defee nag ñu xam amal fulla li nga bëgg a wax wax ko jarul ngay làqatoog leneen waxal mu leer nañ te boo ko waxul boo ko gëmee yàlla dana la feeñal wallahi yàlla dana la feeñal bis dana jóg nga wax fi toj toj bu ñépp ni hëy waaw doo ko mën a nëbb parce que ku nekk li nga gëm mooy feeñ ci sa làmmiñ nit mbuus la mbuus li ci nekk mooy senn li ci nekk mooy senn yàlla nañu yàlla may xam mbokk yi nañ leen moytu njabar laa ilaha illallah lu gën a bon njabar amut njabar day jay nit di dofloo nit di weer nit di toroxal nit njabar rek moo koy def njabar dana àgg ci nit foo xam ni dana dem ba diir yàlla mbagg te du ko bàyyi xel waaw dana dem ba diir yàlla mbagg te du ko bàyyi xel waa dogal ni mu toll boo ko bëggee jël ci yàlla moom mbaa dana sottiyee hmm. ah man de affaire yi jaaxal na ma hmm. am mu ngoog baax na bàyyi leen làmb ji noonu rek na làmb ji sàjj rek <laughs> danañu xam mbër yeeg ñi dul mbër nañ dem rek hmm. bu ñuy dem benn par benn ñuy cëppeelu di feeñ benn par benn benn par benn benn waaye sëñ bi ku mën a fal nit mën a defar say say programme mu bokk ah ku mën a fal wala di folli ah dëkk bi sonn dëkk bi soxla nañ dimbal dëkk bi soxla nañ ko de waaw waaw aka ñu koo soxla ku am pexe ñëwal ku mën ñëwal terrain baa ngi ku mën ñëwal yàlla nañu yàlla aar gaa yi jinne la ñuy jaamu ah waaw ah rawaan jinne la di rawaan ku lay wax naan la rawaan njabarkat bu mag la jinne la wallahi ladi laa ilaha gayru rawaan amul jullit moo tax ni li ñuy wax est xam nañ ko damay topp caag yi gën sa bon ñi xam nañ li ñuy wax rawaan rawaan du jullit yéen laay leer rawaan du jullit ku la bëgg xam loo ne nag da leen di manipuler ah asalaamaaleykum wa rahmatullah yàlla yàlla yàlla yàlla nañu yàlla aar ci ay sama borom mooy allah mooy borom xikma borom bi ne allahi yàlla day alladi mooy borom ba nga xam ni lahu ñeel na ko maa fi samawat mbooleem lu ci asamaan déggagu ma ne ku revendiqué ne am na fa dara mos ngeen koo dégg asamaan ku revendiqué ne am na fa dara suuf de moom léeg-léeg nit ne maa moom lii maa moom lee maa moom lële waaye asamaan domaine réservé la <laughs> domaine réservé la <laughs> gars yi moom dañu kii mais kenn waxu ko fa am naa fa terrain sàngam <laughs> moom naa fa nangam ah dégg am mën naa am mën naa gars yi ñeme nañ lu ne de waaye dégg gu ma ko de. Hmm. moom moom fit moom am nañ ko waaye am naa asamaan benn benn parteeg benn appartement. Hmm. Ah, ah, ah, moo tax yàlla ne ne allahi alladi lahu ma fi samawat yàlla moom li fi asamaan wa ma fil ardi ak li ci suuf xam ngeen lu mu leen bëgg a waxal ñu ne ko yàlla looy wax mu ne wa waylun torox. perte torox ba nit tott lil kaafirina ñeel na yéeféer yi min adabin shadid ci mbugalu jahannam keroog bu ñu demee ba dugg jahannam la ñuy xam ni torox nañ waaw ñuy mujj daaw hunaalika subura ay waay torox nañ ñoo koy waxal seen bopp de kenn du leen ko wax waaw lu ñuy mujj di wax yaa waylana ay waay torox nañu réccu nañ bi ñu nekkee ci àdduna am lépp foogoon ni lépp ñun ñoo ko yore ndeke ñun du ñu tus yoruñu dara dara dara dara moo tax borom bi nee na cim torox ñu ne ah mu ne lil kaafirin ñenn yéefar yi buñ ne yéefar nag bu ko firi firim tukulóor de waaw boo ne lil kaafirin rek mu ne ko xuraysi naabe ku makk naa be rek pare ci ñoom waa Quraysh rek kay kaafir ñu baal ma ci laa bokk nag dégg ngeen ah, ñun moom dañoo dañoo dëgër fit ñun moom bu ñu bu ñu dóoree kaafir rek ñu ne makk naa be Madina naa be ñooy jullit ñi makk naa be yéefar yi mu jeex tak ma laa ndeytaan ndaw fi di bu neex waylul lil kaafiriin jullit dina nekk kaafir mhm. nga ne ma lu tax ma ne dana jëf-jëfu yéefar sax ci mhm. dana ko jëf jullit bu demee ba jël njabar gëm ko bay jaamu njabar di jaamu jinne mbokk yi lan la ah ah neexu la wax nag neexu la wax de yàlla de nee na wama kafara walakinna shayatina suleyman du yéefar jinne yi ñoo yéefar yi ànd ak moom kon ku ànd ak jinne yi ñu lay wax ngay def nga leen di wax ñuy def ah yaa atte sa bopp ñun attewuñ la ah waaw wa maa kafara suleymaan walakin na mu ngoog kon moytu leen jinne yi te gis nga jinne jullit ñi am nañu fayda ñoom taluñ la booy wax dañ lay ciipatu danañ kii dafa dof waay ñun dañ koo tal waaw ah. jinne yu ndaw yi nag ñooy naxanteek yow di la nax rek di la wax lu ñëwut di la wax lu amagut ngay séen ay nuances foog ñu affaire yi asamaan la fekk saxaar dong la niir la bu demee ba ngelaw bëri nga xool ko eh du asamaan noonu la lay naxee ngay xool di wax di wax di wax di wax di wax ba bis jot nga téye sa gémmiñ dootoo mën a fii li nga doon wax parce que jinne noonu la mel dina la topp benn temps booy nekk ndaw la lay topp nga nekk jeune la lay topp lu ne mën nga koo am mais boo demee ba commencé xam ni yow dara neewatu fi <laughs> ñu seetaan la fole yow ñoo ñoo mag sa baay mag sa maam mag sa maam Matar ah yow ñoo xamante ni li ñuy dund li ci gën a tuuti cinq cent an la jëm kaw yow loo fa am da ngaa mën a dund cent yi mag mat nga foog ni mën nga leen a manipuler xale lañ la jàppee dañ lay seetaan dañ lay seetaan moo tax mbokk yi borom bi subhanahu wa taala nee na yéefar yi am nañu mbugal mu méttee méttee méttee metti mbugal moomu yàlla nañ ci yàlla musal mbugal moomu lan la jahannam annaaru yuraduna alayha guduwan wa ashiya loolu ci xayaatu barzax la nit bu naree dem safara bu duggee armeel suba gi dañ koy lakk bu mu xëm ngoon gi noonu guduwan wa ashiya yàlla nañ ci yàlla musal su loolu weesoo ba ñu taxaw yowmal qiyaam jahannama day taxaw mbokk yi jahannama bu taxawee ku fa dugg rekk musiba dal na la ku fa dugg nag bokk ci ñu yées yaa ngi jëm ci waylun mooy Parcelles Assainies jahannama Parcelles yooyu nga xam ni moo gën a tàng ci bërëb yi foofee la nit ki jëm mbokk yi wayl dañ koo laaj yonent bi sallallahu alayhi mu ne xur la ci xuru jahannama yi xur ci xuru jahannama yi léegi nag yéefar mën na faa dugg jullit bu sàggan mën na faa dugg kuy woote woo jullit te du jullit mën na faa dugg ñu ne ko yàlla ñoom moom kon nan lañuy ñuy xamee loolu mu ne alladina yéefar yi ñooy ña nga xam ni day ñoom ñu ne ko waaw mu ne yastahibuuna alxayaata ad dunia ñoom daal seen bëgg-bëgg lépp lépp àdduna la adduna rek la ñuy doxal ndeysaan adduna rek la doxal adduna la ñuy waxal moom la ñuy doxal yastahibuuna ñoom daal danañu ëfal danañu gënal alxayaata dunia dund bii nga xam ni fii rek la yam mooy koo xam ni alal rek la gëm pal rek la gëm tur rek la gëm gëmut leneen mooy jaamu alal jaamu adduna jaamu adduna am na ñoo xam ne seen dund lépp jaamu adduna rek luy doxal adduna rek lañuy ñuy lijjanti mais luy defar àllaaxira seen yoon ñoom ñoo la gën a xam ni newuñ ci njub koo ci waxalit danu reconnaître loolu moo tax borom bi ne alladina ñooy ñi nga xam ni yastahibuuna alxayaata dunia ñoom daal alaaxira moom wala alxayaati dunia ñu bëgg àdduna mii ala al axira mu gënal leen alaaxira àdduna li fi nekk moo leen gënal alaaxira loolu nag la saxaaba yi ndeysaan muccee woon saxaaba yi danoo xeexoon ak ñett moo tax ñu gañe lépp ku xeex ba not ñett ñii incha allah lu ne sa kanam nga gañe ko ku ci jiitu mooy an nafsul lawaama xeex bi gën a metti mooy xeex ak sa bakkan fexeel ba not sa bakkan ginnaaw gi xeex ak ñi ci sa suuf te gis nga boo notee sa bakkan insha allah di nga not ñi ci sa suuf mooy jabar doom bis boo fexee ba sa bakkan bi nga not ko ba toog ci kawam insha allah yàlla mën na laa may nga not sa jabar not say doom bu loolu weesoo da not société bi ngay dundal ndax li ñu gëm du loo gëm ak lu ñu bañ bañ bañ lu ñu sori sori danañu xam ni yow yaa nekk ci dëgg kon mbokk xeexal ak bakkan bakkan liir la buy nàmpu nanguwul fer danga koy feral du lu bakkan bëgg rek ñu def ko du lu neex bakkan rekk nga uti ko fexeel ba li borom bi bëgg nga jiital ko ci li bakkan bëgg noonu la saxaaba yi meloon mbokk yi noonu la saxaaba yi meloon saxaaba yi góor ak jigéen ñépp danu fee bàyyi woon àdduna moo tax fu mujj doo tudd kenn ci ñoom lu dul danga nga yéemu ci góor ci jigéen ana suñuy jigéen tey moo ndax yéen a ngi bàyyi xel àdduna àdduna kër guy naxe la moo ndax da ngay jëndee ngir àllaaxira te ku jël àdduna jëndee ko àllaaxira perte ñeel na la moo ndax da ngay jël iblis def ko xarit mu di la sol loolu bon di la xalaat loolu bon di la wax loolu bon dox sa digganteek jaamu yàlla déedéet lan moo dox sa digganteek sa boroom maa garraka bi rabbikal karim jigéen ñi seen benn mbokku jigéen a ngi nii mooy ummu sharik ummu sharik ab jigéen la boo xam ni ku taarix rëdd dundam la dund bu gàtt la dund waaye bu am barke lool lool lool kan mooy ummu sharik bokk na min alsaabiqina al awalina ila al islam bokk na ci ñi ndëkk dugg ci islaam ca makka ummu sharik dëkkul woon màkka mi ngi dëkk ci xuduudi iraq sori lool waaye keroog yawma an nataqat kalimatay shahaada bis ba mu seedee ni yàllay borom seede ni muhammad yàlla ko yónni jël islaam keroog la jaayi bakkanam diineem keroog la not bakkanam gis ni yonent bi du nelaw guddeeg bëccëg di daawa mu ne naa jàppale yonent bi ci liggéeyam allahu akbar ndaw jigéen bu ñor jigéen ji xëccoowul élection miss xëccoowu ko de jigéen ji xëccoowul pour nekk ab waykat walla mu nekk musicien wala mu nekk leneen xëccoowu ko de waaye ajjana la gis fas na yéenee dem teg na ci bëtam lépp lu ko ko xañ ko xeex ummu sadik tàmbale di woote moo tax mbokk yi alxaraka bu ñu ko bàyyee rek lu bari yàqu xarakaat yi mbokk yi bu ñu ko bàyyi mbokk yi na daawa bi jolli yàqkat yi bari nañ yàqkat yi bari nañ de te ñiy yàq ay nitu diine lañ duñu ay caaxaankat de nitu diine yi ñooy yàq ñooy xeex islaam ñooy fawee diine ñoo fiy daganal nuyoo ñoo fiy daganal musique ñoo ko fiy def de kon ku bëgg a daawa am nga liggéey ponkal yu toll nii ci tur ak i daraja mën a yàq lu toll nii waratoo nelaw nga lu dul nga mel ni saxaaba yi mbokk yi umu sharik day daawa mbokku jigéen ñi ay mbokku jigéenam ñaata la dugal ci islam kenn xamul nu mu toll dugg ci kër jigéen la seet jigéen ni moom nuyu ko toog ak moom ci néegam talqin ko kalimatay shahada ko wax lan mooy diine lan mooy islaam yéefar yaa ngi rey jullit ñi taxul mu ragal waxul ne man jigéen laa buñ ma jàppee rey ma ñu ngi duma bilaal fële ñu ngi am Ammar fee ñii ñu ngi leen di lakk ñii ñu ngi leen di weer ci naaj ñii ñu ngi leen di rey loolu lépp nekk préoccupation bu Quraysh waaye moom teewul muy dugg seen kër di daawa seeni jabar seeni doom allahu akbar umu sharik noonu la nekkee ba xabaaram siiw yëfër ne yéen a ngi duma ñii de waaye am na jigéen joo xam ne moo gën a garaaw góor ñi moo leen gën a garaaw ah. gaa yi dem jël ko biñ ko jëlee xool muy umu sharik ñu naa ah, rus nañu fameem bu du woon ak loolu danañ ko def ni ñuy def moroomam waaye nañ leen ko mbugal mbugal mu yem <laughs> mbugal benn yemu ci lan mooy mbugal mu yem nañ leen ko teg ci giléem te du am teg du am fu mu toog du am fu mu wéeru ñu yóbbu ko mu dem dëkkam bu àggee balaa une semaine coono yi daw giléem bi jàpp ko mu feebar dee xoola ma loolu mooy gars yi dañ lay rey lentement <laughs> waaw moo xew léegi gars yi bu ñu la bëggee rey mën na ñoom fu ñu jaar ba ba ba ngay dox fekk dee nga loolu la yéefari naloon ndeke yéefaru démb ak bu tey benn lañ alkufru milla waahida benn lañ xoola mbokk yi yéefar yi ñu dajale benn convoi presque cortège boo xam ne mat nañu treize personnes ci ay yéefar ñu jël ummu sharik teg ko ci kaw gëléem ci jigéen xam ni gëléem boos bi rek ni mu mettee ñu teg ko ci léeg-léeg fa déedéet ñetti fan ñu koy dox joxuñ ko lekk joxuñ ko naan nangu li mu yore lépp xiif sonal ko ñoom bu ñu bëggee lekk toog génne seeni mbuus lekk ci wetam ngir naqaral ko lekk ci wetam ba suur xaqataay naan ndox ba xëppoo ndox dem seen yoon moom mu continuer rek waram waru continuer comme amut lu mu dogee benn fan amul lu mu lekk ñaari fan amul lu mu lekk ñetti fan ci digg àll bi ba mënatul te boppam ci gëléem gi day toog léeg-léeg mu xaw a mel ni kuy daanu ñu takk tànk yi ah bàyyi leen ko kii moom buy àgg rekk tooy dee loolu lañ wax ñu dox ba sonn ci digg àll bi campé bi ñu campé ci digg àll bi indi ko ba ci wetu benn xeer naaj bu tàng jër teg ko fa yeew ko fa ñoom toog ci kër yi di xaqataay di waxtaan ummu sarik dem na ba làmmiñ bi damm mënatul wax mbokk yi góor ñemewul xiif astamaak jigéen benn fan ci xiif ëpp na astamaak ñetti fan mbokk yi ummu sarik nekke loolu ñàkk tooy xepp sonn lool ba yi mënatul xool bu xoolee sax du xàmme ne ay nit lay xool ummu sharik ne fa mu sonnee dëgg dëgg dëgg ba jaaxle la jékki rekk lu sedd guyi toq ci kawam wallahi lu sedd guyi toq ci kawam mu geestu muy ab baag baag bu def ndox mu sedd ñu tiimal ko baag bi mu naan bëgg a continuer ñu téewaat baag bi mu noyyi noyyi lu yàgg baag bi ñëwaat mu naanaat tuuti ñu téye muy ñaari yoon mu noyyi noyyi ñetteel bi noonu bi mu naanee ñetteel bi ñu bàyyi ko mu naan naan naan ba doyal jël ndox mi xëpp ci yaram bi yépp yaram bi tooy xepp yére yi tooy xepp mbokk xikma bi nekkoon ci ñi koy daggal naan yi xam ngeen ko ku xiif ñetti fan doo ko jox mu naan direct bu naanee direct rek de waaw moo tax ñu ci ci naan biñ koy jox ñu ngi koy jàngal teg ginu naan allahu akbar yàlla mooy xakim yéefar yi dañoo geestu seen yére yaa ngi tooy xëpp ñu ne waaw lii fu mu jógee ñëw jege xool yow foo jëlee ndox ah da ngeen maa joxoon ndox man yoru ma ndox de foo jëlee ndox mi ah <laughs> sam de jox na ma ndox mu dàq ci ndox yi ndox bi ma naan nii <laughs> musuma koo naan ci sama dund gars yi ne ku la ko jox mu ne yàlla ñoom ñëpp ñu ne ashhadu laa la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah treize personnes ñoo ko yóbbu woon bugg koo xalak mu dugg ak ñoom ci islam ñu àndaat cortège demaat màkk jigéen a ko def de jigéen bii nag du disque d'or waaye disk jamaa la su ma amoon tur bu ëpp disque wala hijab jamaa la bokk waaw boo nee disk sax nuru yi fëri hijab jamaa la lan maa ko ko may bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm diine gëm ni dund bi yàggul mbokk yi jigéen ñi bàyyi leen xel diine yàggul jigéeni jullit day sol solu jullit ay waay moytu leen solu tubaab sol pantalon jiin sol mbubb mu seere muuru naxoo nit ñi sa bopp ngay nax déedéet yaa ngi nax sa bopp yàlla kenn mënu koo nax lii jubluwaay muuraay mooy sa taaru biir ak sa taaru biti na nëbbu waaye muur bopp bi bàyyi jëmm ji ah, loolu yëkkatiwul muuraay de muuraay da koy gëm te yàlla tax te booy muur yére bi sa kaw fexeel ba xol bi na muuru ci defaru jigéenu jullit day muuru di jàng waaye malheureusement ñu bëri nangootuñ jàng jigéenu jullit day fexe mokkal xisn muslim day fexe xam azkaaru sabaax wal masa jigéenu jullit day tudd yàlla fu mu toll lan la yàlla wax waa kër yonante bi waskur na maa yutla fii buyutikunna min jigéenu jullit day am heure bu muy jàng alquran ñu koy tafsiral quran mu xam li ci nekk xolam di tooy waaye bëgg dëkk ak télé bi rek di seetaan ay feuilleton di seetaan ay théâtre di seetaan ay caaxaan xanaa xamu leen ni inna al imaana yazidu wa yanqus al imaanu bi taa wa yanqusu bil maasiya moytu leen yenn théâtre yi moytu leen yenn film yi sa film yi noonu waroo ko seetaan ñu bañ Muhammad waroo seetaan li ñuy joué bu yàggee rek nga xeeb Muhammad li yonent bi jàngale booy seetaan ay yéefar bu yàggee nga tuutil ko ndax dana dem ba nit jox la loxo dootoo ko bañ dana dem ba nit teg la loxo dootoo ko bañ dana dem ba sa muuraay da ngay commencé tànn yan façon ngay muuroo nan ngay muuroo parce que modd nga bëgg muuroo te àdduna ñëwuñ fi pour modd dañ fee ñëw pour temps bu gàtt pour dee dem àjjana yàlla nañ ko yàlla defal wallahi li ma lay dénk moom lay dénk sama bopp di ko dénk sama njaboot xaw ma nangu nañ xaw ma nanguwuñ mais waxtu bu nekk loolu lay wax seen muuraay yii du pour cappi-cappi génn de déedéet muuru li wajhillah muuru ngir yàlla la muuru yàlla gërëm la fi yàggul kenn du fi dund cent kenn du fi dund cent jigéen nga danga ngaa cher lool moo tax yàlla utal la nooy sole yére danga ngaa cher lool moo tax boo demee àjjana yàlla def la nga dàq xuurul iin ni ngay def ba dàq uurul ayn fii il faut nga rey sa bakkan toog ci moytul caaxaan baal caaxaan fàtteel caaxaan soo ko defee yàlla mën na laa dimbale góor la même chose bu ñu wax rek ni jigéen ñi laay waxal waaye dama gëm ni bu jigéen baaxee ñun góor ñi ñu baax du ñun yàlla moo leen def yaay yàllaa leen responsabilité yàllaa leen def ngeen nekk magasin bi ëmb góor yàlla jël sëkkëreem def ko ci seeni biir yàlla jël teraangaam defal leen ko jël yërmande gu mat sëkk defal leen ko kon delloo leen yàlla njukkal jaamu leen yàlla góor góorlu leen te incha allah bu ngeen góor góorloo jaamu yàlla ëllëg ci jàmm rek lay mujj diine topp yàlla rek la ak li yonent bi jàngale bakkan amu ci cër taar taar lu amu ci cër kenn terewu leen ngeen sol lu rafet kenn terewu ko waaye moytul yenn yi loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi alladina yastahibuuna alxayaata addunia yéefar yi mooy ñi jiital àdduna bëgg ko lool ba àdduna rek la ñuy dund àdduna rek la ñuy dund tey boo waxee yàlla neen yonent bi ne ñu ne dafa exagéré daa bañ jigéen ñi génn moom dafa fitnaal jigéen ñi wallahi ladi laa ilaha gayru li alquran wax ku leen ko wax te muy dëgg mooy day nuru ku soxor ci yéen fekk moo leen gën a bëgg du soxor de téere bi moo wax lii te léegi mu ñëw ci kanam insha allah borom bi nee na ñi jël àdduna mu gën a leen alaxira yemu ca wa yasudduuna an sabilillah ñuy feg yoonu yàlla toog diggante yoonu yàlla ak i ndigalam emu ca wa yabguunaha iwajan ñu koy jàngal boobu nag moo naqaree firi waaw alladina yasudduuna an sabilillah mooy ñi toog ci yoonu yàlla fatt ko ba pare wa yabguunaha iwaja utal ko yeneeni yoon yeneeni firi yeneeni jàddukaay waaw bàyyi yonent bi tudd seeni maam waaw bàyyi li sunna jàngale tudd seeni bindi maam ne yonent bi la ñuy célébrer guddeem di nettale seeni maam dama xamul nag yonent bee yonent wala seeni maam ay yonent waaw waaw ñu ci bëri dañ lay wax ne dañuy célébrer guddi yonent bi seeni maam lañ lay nettali sëriñ diw bi sëñ bi duggee fii ba mu génnee fee ba mu dàqee bëy bi ba ko xar ba nangamee waaw yonent bi lan la ci am lan kon mbokk yi buñ ñu nax bu ñu nax diina ji diina yàlla la kenn waru cee nax kenn moo tax borom bi ne wa yabguunaha xëcc la ci ba nga ñëw iwajan ñu jàddal la jàddal la contourné la bàyyi la nga tegg yoon bi borom bi ne ne ulaayika ñoo ñii def lee ak ña ci topp fii dalalin ñu ngi ci réer nga ne yàlla ha mu ne baid réer gu sori da ngay woote duñ la dégg nga wax ñu jàkkaarloog duñ la gis yàlla nag ñëw ci yonente bi ne wa maa arsalna yónni wu ñu mukk mukk min rasulin benn yonente illa bi lisaani qawmihi lu dul làkku aw nitam lay wax ay nit boo leen di wax leen di jëriñ da ngay wax lu ñu dégg boo leen waxee lu ñu déggul mën a leen jëriñ moo tax mu ne wa maa arsalna yónni wuñu benn yonent illa bi lisaani qawmihi ndare muy làkk làkku xeetam te da koy mën ba mën ci lu ñu mënut yonent du laaj baat bi lu muy tekki ndax moom la yàlla jox mission mu war a wax moom kay mooy wax ñu naan baat bi ban la moo tax yonent bi dafa judd rek ñu yóbbu ko mu dem nàmp ji yoon bi ko yàlla forme xoolal yóbbu nañ ko formé ko ba mu nàmp gis nga làkk bi ngay làkk bi nga jàng ak bi nga nàmp jàng ko kenn du la ci dab moo tax làkk bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo nàmp saxaaba yu bëri demoon nañu nàmp ji ñu mel ne ñoom Aboubacar ak ñeneen mais yonent bi day wax baat ñu ne ko lii moom lan la waaw par lan moo tax parce que làkk bi da koo xam dëgg dëgg dëgg borom bi ne li tax nag mu def ni yonent buy wax ak xeetam day wax ci seeni làkk xam nga lu tax ñu ne ko déedéet mu ne lii yu bayyina lahum ngir mu leeral leen ndax yàlla buggul yowmal qiyaam nit ñëw ni mbir mi leerul ci man mais li yu bayyina lahum ngir mu leeral leen lan la leen di leeral li lëndëm sharia da leen koy leeral waaye du leen leeral xaqiqa yonent moom mutul wax xaqiqa xamu ko xam gaa yee ko ci ginnaawam xam naa bu ñëwaatoon dina gaa yi lan mooy xaqiqa xaqiqa yonent bi du ko leeral de xamu de yonent bi nañ ko yemloo fi mu yem sharia sharia la wax lañ ñuy ko defee luy bay ne mu leeral leen su leen leeralee ba pare nag yàlla ne fa ca sabab sa nag yudillu llahu man yasha yàlla buñ ci yàlla boole yàlla nee na dana réeral ku ko neex ci coobareem faalun li ma yurid wa yahdi man yasha yàlla nañ ci yàlla boole yonent bi tënkal na ko ne la man yahdi llahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya ku yàlla jubal kenn mënu laa réeral ku yàlla réeral kenn mënu laa tànk moo tax mu ne waaye di man yasha mu jubal ko ko neex lu tax wa huwa moom al azizul hakim yàlla moomee moom mooy aji not ci kàttan moom mooy aji xarale incha allah nañ bàyyi dund Moussa rek bañ ñëw ñu dugg ko benn yoon incha allah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh